suufa moo tax réew mi quotidien di sampab laaj ndaxam moom Sonko ci boppam dina mën a jógaat ci situation bi nga xamante ne moom la nekkee situation bi l'observateur jàpp ni métti na lool ndax parti bi ñu tas yéenekaay bi yokk ci sax ni Sonko ci boppam dañu ko génnee ci liste électorale yi moo tax mu gis ni Pastef ci boppam recours yi nga xamante ne fase na ko yóbbu dina métti lool mu daal di ci am ndam xiifal bi Ousmane Sonko nekkee ci prison mën naa métti ci wàllu wërgu-yaramam bu ñu sukkandikoo ci kàddu docteur bi jiite suma assistance ci yor yor bi moo de santé bi nga xamante ne Ousmane Sonko nekkee ne ko doy na waar te lépp lu ko ci fekk daal ne état bi jàpp ni moo ko waral li war a mën a tax ba Ousmane Sonko génn ci prison bi mu nekk mooy grèwu xiifal boobee mu nekkee direct news moo ni njort ndax dafa jàpp ni bu fekkente ne xeex wàllub yoon rek ak politique boo moyul njiital Pastef bi dina yàgg ca kaso gi xeex bi am ci biir yeewi askan wi war naa yàgg le quotidien yéene kaay duppee ko sax mortal combat ndax diggante taxaw Sénégal ak Pastef jamono ji ci xeexub intérêt dëgg la ñu nekk li koy firndeel na ci kàddu yi nga xamante ne Barthélémy ko niki démb muy xamle ci biir Le Quotidien mooy ñi nga xamante ne dañoo gedd wote bi ngir dellowaat Khalifa Sall ci liste électorale yi Barthélémy Dias fës tamit ci xët bu njëkk bu lii Quotidien mu mel ni amul lenn lu mu fàtteel waa yeewi askan wi rawatina Ousmane Sonko ci boppam moom meerub Ndakaaru bi jàpp ni yeneen leader yu yeewi askan wi jamono ji tilimal der dëgg taxaw Sénégal lañu fas yéene def te loole du ko ci nangu moom doomu Jean Paul Dias bi jàpp ni bu fekkante ne am na ay workat dëgg mooy yeneen leader yu nekk ci yeewi askan wi waa yeewi askan wi rawatina Ousmane Sonko ak ñi mu àndal Vox Populi jàpp ni lu ñu déggul démb ci làmmiñu Barthélemy Dias daanaka amut Bart wax na waaye yayul kenn rawatina ci lu jëm ci wàllub trahison bi nga xamante ne moom lañ leen di tuumal l'évidence moo ni jàngatee li am ba am mooy li naar bu ndaw bi wax rek ak lépp lu mu jëf mën nañoo jàpp ni ci bàyyi jëla ko jëlee moo tax la tribune gis ni li xew yépp ci biir yeewi askan wi rawatina diggante taxaw ak lépp Khalifa Sall moo ko waral yéenekaay groupe de médias bi gis ni moom meerub ndakaaru ba woon dafa jëfandikoo Ousmane Sonko ba doyal ba noppi daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñoo koy faat lu mandat ne ko déet ki ñu faat kay mooy Khalifa Babacar Sall ci boppam ndax gannaaw ba ñu ko tëjee kaso génnee ko ci liste électorale yi donte nag indi nañu ab coppite bi mën a tax mu mën a bokkaat waaye jamono ji ni ko beneen opposition bi gisee ndax mel ni dañu ko beddi tax na ba moom Khalifa Sall mi nga xamante ne def na juróom fukki at ci wàllu politique jamono nañoo jàpp ni xamul sax fu muy taxaw bu ko xamee tamit critique jàpp ni lu muy mbëbët moom muy doon président de la république dina dis lool ci moom ndax li mu war a dabu bëri na lool teg ci ni waaye Yewwi Askan Wi jamono ji bëggatuñu dégg ay mbiram mbirub xalifa Sall ci boppam ak Karim Wade ba léegi jeexagul ndax Sud Quotidien samp na ci ab laaj ci li nga xamante ne moom lañ leen doon toppee wàllub koppar ndaxam loole mun naa na saxal seen bokk ci élection présidentielle bi ñu dëgmal yéenekaay bi dénk na ci ay kàddu ñi nga xamante ne seen xam-xam na ci wàllu politique rawatina wàllub élection Djibril Ñing nekk GRADEC muy jàpp ni réhabilitation mooy mën a tax ñu daal di teg ci suuf lépp li nga xamante ne tegoon nañ leen ko ni ay daan Njaga Sila di expert tamit njiital cabinet select jàpp ni li nga xamante ne moom la ñu waroon a fay ni ay ndàmpaay loole mën na leen gàllankoor tamit ñu bokk ci élection yi élection yi war a mel ni sabar bu tas ndax ci biir opposition bi sax xaajaloo lañ ci daal di nemmeeku enquête quotidien wax ci li xew jamono ji ci biir yeewi askan wi nga xamante ne daanaka dafa kalaate te loole li ko waral suñu naataangooy jàpp ni du dara lu dul ko waral du politique képp ndax Walf Quotidien dafa jàpp ni Macky Sall ci boppam moo tas opposition bi ba noppi te dafa mel ni lu mu diggee woon mooy fexe ba opposition bi ci boppam dootul tekki dara ci réew mi noonee la ko njiitu réew mi jëfee ak bépp kàngam bi nekk ci opposition bi opposition dina am ci biir benn Bokk Yaakaar ndax source a fasalaat na taxawaay bi nga xamante ne Jean-Baptiste Diouf am na ko fas yéene doon candidat moom socialiste bi sekk waxtaan wu yaak suñu naataango yu source a wax na ci li war a fekk nag militant yu PS bu fekkente ne amuñu candidat candidat ci présidentielle bi li mu gis tamit mooy bennoo dëgg la yàgg na ci ndonkaas gi waaye bëri na lool ay jafe-jafe yi nga xamante ne jamono ji mu ngi koy jànkonteel kii jànkonteel jafe-jafe jamono ji mu ngi ci biir libération muy maître El Hadj Mamadou Ndiaye mi nga xamante ne yoon teg na ko loxo gannaaw ba ko ordre des avocats tegee daan ba noppi moom meerub Thiaroye sur Mer bi bokk ci taxawu Sénégal nee ñu dafa takk ripp ci wàllu mbuuxum ak ger muy escroquerie bi nga xamante ne nee ñu toll na ci ñetti milliards ci suñu koppar tolluwaayu doomu mi bi bëri na lool bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien lu toll ci téeméer ak ñaar fukki junni ndaw jaar nañu ci géej gi yegg ci Europe jamono ji ci biir atum 2023 bi ñu nekk gaal yi di wéy di faat ay bakkan ndax la tribune mu ngi ñuy xamal ni lu toll ci fanweer ni ay doomu sénégalais faatu nañ ci ci weerub sulet képp bi ñu génn CEDEAO fa yéenewul génn ci dogal yi mu jël jëmale ko ci réewub Niger L'As Quotidien di ñu xamal ni kon njiitu réew yu sekk kuréel gi ci boppam ne ñu dakkaluñu ba léegi yóbbu ay ci réew ma CEDEAO fas yéenewul dellu ginnaaw CNG fas yéenewul dellu ginnaaw ci bis bi nga xamante ne jàpp na ko ngir combat bi war a dox diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé sunu lamb duñu xamal ni kon benn fan ci weeru octobre lañu koy amal donte waa écurie Fass dañu doon sàkku ñu daal di koy toxal ndax yëf yi dañoo jàpp ni jàmp na lool njeexteelu wee bis bi lañu jàpp ni championnat bu Arabie Saoudite dina door waaye ren ji war naa xumbalte dagan bu ñu sukkandekoo ci stade quotidien mi nga xamante ne fësal na ci nataalu ay suwar yi nga xamante ne ren ji lañ leen daal di jënd bokk na ci Edouard Mendy Sadio Mané Karim